Mamadou Sy Albert maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay awa. alors sa xel ci wàllum politique euh, ñu gis ne euh, fi mu toll nii njiitu réew mi Bassirou Diomaye fay jël na dogal euh, ci wàllum motion de censure ne du fi amee nan nga ko jàngatee ci lu ni mel nga xamante ne daanaka convoqué na sax lii di session extraordinaire. waaw mën nañu wax ne président nangul na assemblée que am na sañ pour rejeter projet bi mu euh, proposé woon euh, maanaam ñu supprimer au conseil ak conseil économique social nangul na leen lool mais li mu nangulul euh, assemblée bi mooy motion de censure bi motion de censure bi bañ na ko loolu tax mu teg ci table assemblée beneen session extraordinaire loolu lu muy firnde mooy que àndul ak motion de censure bi que li ko yitte mooy tey jii li mu proposé assemblée ñu toog waxtaan ci ordre du jour bi li ko yitte aussi mooy que le à partir du 12 septembre euh, lu xaw a wóor mooy que moom dina dissoudre assemblée nationale bi te soo moytul motion de censure bi du du mën a am. li ma limogeage euh, kii di Abdoulaye Daouda Diallo Aminata Mbengue Ndiaye tamit ana nan nga ko gisee. mais loolu assemblée moo sàggan assemblée mënul woon bañ a xam ne que. suñu bañalee président suppression au conseil ak euh, conseil économique social waroon nañu xalaat ne que président am na beneen jumtuwaay mooy décret léegi assemblée voté na euh, rejeté projet bi moom mu jot jël décret supprimer de euh, poste président au conseil des collectivités territoriales supprimer poste président loolu dafay annuler complètement de rejet projet bi mais loolu defe naa Euh, assemblée sàggan na ba ba bañ gis loolu suñ ko gisoon lu gënoon ci ñoom mooy waxtaan ak président bi euh, xool ban solution la ñuy am bu dul renvoi mais boo rejeté président am na doole am na pexe pour war la rek même boo bañee man am na feneen fu muy jaar pour def euh, li li nga xam ne lii moo ma soxal. alors ndax mën nañu xaar tey Elimano Diori ñi di Ousmane Sonko def déclaration de politique générale. ah en tout cas fu mu nekk nii. Euh, le loi organique bi assemblée voté bi nga xam ne euh, règlement intérieur assemblée la la ñu voté woon président promulgué na donc mën nañu wax ni ci wàllum yoon ak politique dara teewitul Ousmane Sonko pour mu dem ba assemblée wante nag euh, loolu pour mu dem dafa laaj assemblée tey jii am nañu session extraordinaire naka la ñuy programmer est-ce que dinañu programme Ousmane Sonko avant le 12 Euh, suñ ko defee xëy na Ousmane Sonko dem mais bu ñu xaaree ba douze euh, aksi c'est sûr et certain que après le douze septembre Ousmane Sonko du demati euh, assemblée nationale. alors ñu ci bëri nag ñoo ngi wax ne kàddu yi mu yëkkati annoncé lii di wàllu motion de censure bi waru koon def laata njiitu réew mi Bassirou Diomaye fay nga gis ne loolu lu war la. ah lu ko war la motion de censure moom la concerné. assemblée nationale euh, moom mooy chef de gouvernement bu dee motion de censure chef de gouvernement moo war a dem bu dee waxtaan na ak président président nekk bitim réew lu jaadu la moom bu fekkee am ndogalu président de la république muy wax ci agent primature te ñëpp ñuy bàyyi xel ci moom motion de censure bi loolu lu jaadu la boo amee ndogal euh, dogal président euh, ne ko motion bi do am lii ak lii dina am ba Ousmane Sonko dafa jottali en tant que chef de gouvernement mais loolu lu ko lu ko war la. li mu wax ne motion de censure du fi amee te fii ak le douze ñeneen ñi ñi nga xam te ne ñoom ñoo féete ci assemblée nationale daañu am leneen du ñuy def lu dul nekk député nan nga jàngatee ay kàddoom yooyu. non loolu ñu ngi ci politique Ousmane Sonko chef de gouvernement la Ousmane Sonko mooy chefu Pastef mais kaddu ñaari kàddu yooyu bu fekkee ne yow yaa ko yore yow la ñu sos. mais yow yaa yore baat baatu président bi yaa ko yore yaa yore sa baatu parti aussi mais kooku su su waxul kan mooy wax Ousmane Sonko lu muy wax ba place am la si moom mooy rôle am que c'est un rôle politique mm. nga nekk chef de gouvernement chef de parti mais soo waxul kan moo lay waxal mm. et je crois que aussi surtout motion de censure bi du visewul keneen ku dul Ousmane Sonko mm. donc même personnellement amoon na ay raison pour informer ces militants de Sénégalais lu nar a xew. Hmm. boo di xoolee bu baax li mu annoncé loolu la président wax donc amoon na ndigal président jox na ko autorisation bi. moom mu jël responsabilité am euh, wax ko. alors wàllum reddition des comptes ñu ne war nañ ko tàmbali nag ci semaine bi ndax foog nga ne mën na nekk. ah non amatul du mu nekk nii moom amatul lay Euh, président wax na Ousmane Sonko wax na euh, justice bi wax na ñi nga xam ne ñoo war a àtte amul benn structure bi nga xam ne euh, taxawul donc lépp pare na donc justice bi nag mais amatul benn prétexte ñoom ñoom nag ñoo war a liggéey defe naa du président du premier ministre non justice bi am na dossiers yi am nañu seen structure am nañu seen responsable ñoom ñoo war a def seen liggéey defe defe naa que justice bi dina def euh, dina def liggéeyam en tout cas sénégalais am na lu ñuy xaar ci justice bi ñu xam dëgg-dëgg reddition compte bi naka la nar a demee. ak fu ñu jëmale Sénégal. alors premier ministre bi sax moo ngi annoncé ne daal fan yi di ñëw euh, daañu rendre compte mooy ñi nga xam te ne daanaka laale nañ euh, ci alalu askan wi lan la ñu mën a jàpp ci kàddum yooyu. ah en tout cas bu ñu xoolee rapport yi dafa bëri IGE def na rapport Cour des comptes def na OFNAC def na président Diomaye mi commencé na def ay audit mais lu ñuy séntu mooy que euh, malversation bi dafa bari et loolu lu mu nar a indi mooy que ñu ñu nar woo ci yoon euh, soo yaa yaakaar naa dina ñu bari et, et loolu euh, je pense que ñuy xaar justice bi pour ñu gën a xam ñaata lañu ban secteur la ñu nekk ak procédure bi aussi il faut ñu xam procédure bi ban durée la war a la war a la war a tenir euh, je crois que loolu yëpp mu ngi mu ngi suñu kanam mais soo moytu moom ñu bari dinañu dem wuyu ci euh, wuyu ci yoon. nee na ci am na ci euh, ñett ba ci ñeent ñoo xamante ne daw nañ ñeneen ñi ñoo ngi leen di localiser sax daanaka ca Dubaï ak Canada loolu lañ ko def wala da ko wax ngir mën leen a tiital wala nan nga ko jàngate non defe naa alerte la parce que ñooñu génne nañu réew mi am nañu ay pexe am na fu ñu jaar bu daw bon loolu information la alerte la wante nag yaakaar na Sénégal moom de état la am nañu suñu partenaire muy France muy Canada muy état unis état Sénégal am na quand même sañ-sañ euh, laaj état yooyu dañu bëgg diw ak diw lii ak lii il faut ñu ñëw wuy suñu suñu yoon. donc loolu defe naa état Sénégal ak justice Sénégal aussi justice Sénégal dafa am euh, fulla ak fayda am expérience je crois que suñu buggee jëli sénégalais fu mu munti nekk ci àdduna dinañ ko dem jëli euh, ndaxte yoon yoon moom ñëpp la ñu war a tegu ci ci yoon. alors jamono ji lan la ñu war a def rek ngir mën a am stabilité politique. waaw fi fu mu nekk nii bon am mënatul am déggoo. ah su su su pouvoir yi euh, ak opposition bi su ñu mënoon toog yàgg. depuis euh, mars avril lii yëpp ñu daal mais fu ñu nekk nii tension moom du kenn xalaatu du wa du wàññeeku fii ak élection législative donc fu mu nekk nii ñoom euh, acteur politique yi mais nañu toog ñu ja jàdd élection bi bu amee ñu xool parenage bi processus bi waxtaan seen bi loolu am na solo pour ñu mën a déggoo ci processus électoral bi mais leneen lu am solo mooy nañu bàyyi Sénégalais dem voter comme ni ñu tànnee seen président dinañu tànn dinañu tànn seen assemblée nationale je pense que acteur politique ñu bàyyi xel quand ci Sénégalais yi euh, Sénégalais yi euh, ñu tànn ku leen neex et puis ku nekk euh, loo am nga nga doylu ci li nga am. ban message ngay am rek looy lancer gouvernement bi. ben le gouvernement il faut que mu jël sa responsabilité. am na responsabilité bi nga xam ne bon élection législative gouvernement moo ko war a organiser donc là il faut que le gouvernement aussi jéem a xool taxawaay bi nga xam ne taxawaay moo bu gën a bu gën ndaxte boo xoolee élection locale yu benn ñu génne yu ñu génne euh, euh, temps yële législative yu coow yi bari woon donc gouvernement bi aussi bu bees la mais nañu taxaw ba am un processus Sénégalais yi mën a voter de manière démocratique et transparente je crois que loolu moom il faut que euh, gouvernement bi jóg ci teel teel a jóg pour ñu bañ a am encore euh, des tensions ci élection yi waaye beneen euh, kàddu gi mooy que mais il faut que ñu am consensus quelle que soit la situation quelle que soit élection lu mu nar lu mu nar a jur mais nañu taxaw pour Sénégal mën a am des consensus politiques Mm-hmm. parce que dëkk quand mënul dëkk ci euh, ci coow il faut des consensus politiques mm-hmm. je crois que loolu aussi responsabilité gouvernement bi la. Mamadou Sy Albert jërëjëf may fàttali rek ni sa xel dafa màcc lépp lu jëm ci wàllum politique ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf Awa.